bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu alaa sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman inna llaaha malaa'ikatahu yusalluuna alaa nabiyyihi yaa ayyuha allaziina aamanuu sallu alayhi wa sallimuu tasliimaa labbayka rabbii wa sa'dayka wal xayru kulluhu biyadika abduka ad-da'iifu al-muqirru bi zunuubihi allatii laa yaxfaa alayka shay'un minhaa wala min geyriha min aljaliyaati walxafiyaati taa'ibun ilayka fi hada alyowmi min asagaa'iri walkabaa'iri wa suui alaadaabi fi alaqwaali walafcaali walixtiqaadaati walimaani walnuzuuri walnaqdi walibraami wa geyriha min kulli ma sadara minhu aw sa yaxduru minhu min wilaadatihi ila wafaatihi mimma la tuhibbuhu wala tarda musalliyan ala ma amatuhu bi an yusalli alayhi wa an yusallima tasliman qailan muqbilan ilayka fi hada alyawmi naawiyan alibadata laka bi xidmatin li abdika wa rasulika muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam naadiman min kulli ma amdaahu mimma yuxaalifu awaamiraka bi tawbati bi hada alkitaabi li xusni zannihi بك ولرجائه قبولك ولابتغاء مرضاتك ولتقاء سخطك محتسبا في عبادته وفي خدمة ربنا ما خلط هذا باطلا سبحانك فقنا فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrari rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawma al-qiyamati innaka la tukhlifu al-mi'ad allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin da'il mujab wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi dhil qabuli wa rida wal ijab waj'al salati hadhihi ko مذكورة لديك ولديه قاعدة لي إلى استقامة وصواب آمين يا ربي بجاه العظيم kàddu yi sax du gudd waaye kàddu yi kaddu yi seede la suñ diggante ak Serigne Alaaji Gana Mesere mi defe naa buñ la soppee man naa yaatu waaye soppe bi dañoo ànd di liggéeyal Serigne Touba muy ñun ñu bokk ci pas-pas bi ñu àndeek Serigne Gana Mesere mi di mutaar ñu bokk pas-pas daje si biir daje ci biir liggéey Serigne Touba bii kon ñoo ngi koy ñaanal Serigne Gana mu yàgg fi lool te ànd ku wér fédération bi nga xam ne jógee na Gambie ñoom ñëpp buñ sañoon ay ay ay bis la ñu jël ñëw teew ngir loolu leen sëñ Gana jëfal rawatina daayira bi ñu wax daayira Sikurla tama doon vice président ba defe naa ne ëpp na fukki at ak juróom yoo xam ne Serigne Gana waxtaan wu jot moo at mu jot moo ñu defal waxtaan te wër na sëñ Tuubaa mu suñu wax jox ñu 1000 francs bu ñu waxtaanee ba pare lu ñu banque suñu loxo jox ko loolu na gor moo ko man ànd ak nit fukki at te mosoo koo teg sart loolu gor a ko man pas-pas nag lañ ànd ak moom xam fi mu toll xam fi mu nekk ñu fekk si fu ànd moom léegi sëriñ Tuubaa suñu jëwriñ sëriñ Naar Diop man la yebal man maa topp ci koom ànd ak ñoom sëriñ Xaadim kii mooy suñu secrétaire bi mooy sëriñ Ahmed Yes Baag mii ma àndal at yi juñu indi si daayira bi moo koy moo koy bind muy sëriñ Ahmed Yes Baag mooy mooy secrétaire u soppee sëriñ Gana Messere fa Gàmbi sëriñ Xaadim Diop mooy secrétaire kon sëriñ Gana kii mooy sëriñ Ahmed mooy suñu secrétaire bu soppee sëriñ Gana Messere fee ca Gàmbi ñun nag lañ li ñu wax rek mooy dañoo daje yow ci pas-pas xëy na lii sax ñorut la ndax suñu diggante yow moo jiitu moo jiitu kuréel gii waaye ku la xam rek xam na ne yow ci pas-pas suñ tubaa ngay dox mos naa laa wax bis ma ne ko man li ma jaaxal mooy xama dama tawat xaw ma lu ma jot man mënumaa déglu benn conférencier bu dul yow nga ne ma nga ne ma du dara da ngaa bëgg sëñ te loolu li may wax moom laa dund ndax man ku may woo ci passeport di ma soñ sëñ Touba lay lay wër kon bu ñu passeport yi doon benn dañuy ñaan nga yàgg jiite liggéey bii ñu nekk ci te lépp loo woote dama fekk ñun buñ sañoon ñun waa Gambie lépp looy woote kenn duñu si man dañoo ñaan bu déwee ne nga ñaan yow fi ay gàtt yoo xamante ni ñu ne waa Gambie ñoo fi indi lii jëfalee ko suñ gaa ndax ñun dañ lay fay bor de ëpp fukki at nangam ngay defal nit programme ñun saa yu gànna saa yu gànna amee ngaan ba déwén bis boo ko mënee defal ñu waaye suñ baas bi kenn du feroon ku du yow ñun foofu lañ taxawee ñun fukki at ak bis bu mënee ñu ne ko dañuy tëbal ba déwén waaye kenn du roon suñ baas bii xam nañ li ñuy waxal xam nañ fi ñu toll ci moo war a sëñ Cheikh day wax ne Gana moom bis bu xatee nañ ko jéggal amoon nañu ab bis ñu le mu nar a fa mu yi ñu ne ko jéggal nañ la ba gannaaw weer koor bis boo ñu jàppal ñu ñun yow dong pas-pas bi ngay woo ci suñ Tuubaa lañ lay wuyu kenn duñu ko saboteel kenn duñu ko yàqal yal na fi yàggul lool mesere te wér te lépp nga fekk ko barke suñ Tuubaa xasaadi maa ngi jéggalu mbooloo mi إكراما يفوق الإكرام الذي أكرمتني به في دنيا واجعل شذلك مصبورا علي حتى تدخلني الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين وصديقين وشهداء وصالحين اللهم إني أسألك بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم an tusalli alayhi wa tusallima salaatan wa salaaman taxfiru bimaali kulla ma amiltuhu qabla alyawmi wa kulla ma amaluhu ba'dahu mimma nahaytani anhu wa lam tardahu wa nasituha wa lam tantahu wa xaramta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila tawbati minhu ba'da jaraati ala maasi dig wa daqabal bihima bis bi moom daanaka ba mu desee daanaka weer ak léegi ay bis yu ne ñu def ci ay réunion loolu ñoo ngi ciy àndanteeg mbooleem comité bi nga xam ne ñoo yor mbooleem organisation bi yëpp ci section bu ne looloo waral fan yi yëpp ñoo ngi daje fii événement bi sañ na noo wax ni roulé na depuis bërki démb ci kër gi fii loolu ñoo ngi koy àndante ak mbooleem ñi nga xam ni dañoo yor organisation bi ci fànn gu nekk kenn ku ne ci ñoom it di jaay say nelaw di boole kook sa temps waaye boole kook sa sa alal ngir nu ñu mën a def rek ba bis bi mën a réussir loola moom kenn ku ci ne ci ñi ca nga ni nag euh, wàññi boo gis am na jàppal diw waaye wet gi nu ci féete nun am na ñeneen i nit ñoo xam ne mel na ni ñun féete ci yeneen i wet yoo xam ne sax amaa ñu gën ñoo sonn noonu ci wet gii ñu féete waaw loolu moom waaw noo gi sant ñëpp di sant bu baax di beral sant bu baax susu Lamp FM sustu di beral cant Serigne Euh, li ko waral mooy fi mu ne nii euh, jamono day toll foo xam ne nit ki da ngaa war di fàttaliku lu bari ci sa ginnaaw te fàttaliku lu bari sa ginnaaw mooy sëñ Gana bi ko suñu borom defee mu doon conférencier Sud FM la njëkk a waxtaan sëñ Mortala Fall yóbbu ko gannaaw ba mi ngi jaaree ci Lamp FM ci communication ba nit ñi mën koo xam te lëg bu lakkee olom na ko gërëme coy donte ni coyee ko taxoon a jóg waaye ci moom la yàlla jaarale dogal ba kon noo ngi sant mbooleem euh, li nga xam ni moo màcc ci làmp lépp jaarale ko ci sëriñ Aliou beral cant bu baax sëriñ wa bilkaabati xiblatan wa maqul laka bi annaka xayru raziqin wa akramul akramin wa arhamu rahimin wa bi annaka see liggéey Serigne Ganna Messere Makhtar ci bis bii nga xam ne ci lay sant Serigne Touba ñetti ponk def ca daje dani dama ci sant Serigne Touba di ci ñaanal sama waajur wu jigéen bi nga xam ne daal lakk àddina waaye di ci delloo njukkal Serigne Touba ñu ne ko tax mu ne bëgg gi ma bëgg Serigne Touba war naa tax fu ma toll di sant Serigne Touba euh, sama waajur teete gi ma teete toqi ma ci lislaam yar ma ci lii ne ba tax ma bëgg Serigne Touba war naa fu ma toll di ko ñaanal ginnaaw nekkatu fi muy waajuram bu jigéen. nee nag li tax ma di ko delloo njukkal mooy yàlla moo ne ñaan leen may leen bu ngeen ma sante ma dolli leen bi ma ñaanee yàlla may na ma kon dama ko war a sant ndax mu dolli ma. nee nag ci biir ndol leen loolu nag ci laay delloo njukkal Seexul Xadim loolu moo waral Serigne Gana bi mu xëyee suba. mbooloo mi mel ci moom ni Serigne Saliou Mbacké rahmatullahi alayhi dafa waxoon ne nii laa mel ci Serigne Touba jërul wax kem noo mel ci Serigne Touba rek noonu la taalibe di mel ci yow yaa ko wax léegi ne nga màggal gi li jëpp boo xoolee bëccëg bi ni mel nga ne askan wi bàyyi xel kon Alaaji Gana Messere Mokhtar nawaytu an ufniya umri fi ma yurdika wa yurdi rasulaka taala alayhi wa sallam li zalika bi fadlika wa wa karamika wa bijaahi sallallahu taala alayhi wa sallama allahumma inni ànd mooy boole ànd rek liggéey Serigne Touba ndax Serigne Gana Makhtar dafa jeexal ak dundam ci waxtaane Serigne Touba waaye liggéey Serigne Touba loolu nag mooy li nga xam ne moo nu war te moo war taalib Serigne Touba ndax Serigne Touba dafa waxan ne sama dund gépp dama ko jeexal ci sant yàlla ak liggéey la alayhi salaatu moom moo jeexal ak dundam ci loolu a jeexal suñu dund mooy sant yàlla waaye ak liggéey Serigne Touba loolu nag moo tax ñu def benn ndaje boo xam ne dañ ko tuddee soppee Serigne Gana Makhtar di ci liggéey Serigne Touba waaye jaare ko nag ci bëgg Serigne Gana Makhtar ngir jeexal gi nga xam ne jeexal na ko ak dundam ci Serigne Touba waaye waxtaan gi waxtaane Serigne Touba di ñu dolli waaye daf ñu koy leeral di ñu leeral dëgg-dëgg ab taalib bi nan la war a nekkee waaye taalib Serigne Touba nan la war a doxee waaye ñun ñi nga xam ne dañoo ànd tamit nan lan mën a jàppalantee nan lan mën a dimbalantee nan lan mën a jariñantee ba tey yi liggéey bi Esquive yi mu nekk liggéey boo xam ne bu jafe woon la nag ndax mbooloo neexut a jiite Serigne Mbacké moom xam na ci dara ndax moom moo ñu jiite moo ko sos kon ñoo ngi ko ñaanal suñu borom mottalil ko liggéey bi tamit euh, liggéey la boo xamante ni Serigne Touba rek ko tax a jóg amul xaaj amul seen tamit ndax ñun ñëpp ci bokk mbooleem fu taalib Serigne Touba nekk fa nga ci nga ci nga bokk mboolem ki safoo Serigne Gana Maxtaar ci nga bokk wa jabi adala ma astadara fi min almaghfin allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin atqa nnaasi wa sallim alayhi wa ala alihi wa jabi adada lahadaati wal anfaati allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin al-ajwad wa sallim alayhi wa ala alihi wa jabi dafa woote ba pare bëgg sant sëñ Tuubaa mu ni la sëñ Tuubaa waxoon ci màggal gi rek lay wax ci euh, bis bi ba pare tamit nag daan ne soppe yi ñoom mi ngi leen ci xaar seen waay ñoom la fa yéene àndal cant gi ba pare loolu doyu ci kenn ci ay ñi nga xam ne ñooy sàkku ngërëmam ci biir këram ci keesam yi ku ci ku ci wooyee soxna maam Jaara Mbàkke mu féetale ko waañ wi ba pare mu jël soppe yi daan yéen laa fa féetale ngir ngeen taxaw liggéey bi xam nga tamit lool lool loolu dafa rëy soppee na comme nga am ñoo xam ne jóge nañ fii lañ dëkk waaye jóge nañ ba Gàmbi ñii ci biir Touba gii ñii jóge Touba Louga ñii Dakar ñii Touba Bosolel ñii feneen ak feneen ay gox yoo xamante ni ba pare kuréel gi li ko li ci gën a yee mooy lépp ngi ci biir menuisier yaa ngi ci biir maçon yaa ngi ci biir baykat yaa ngi ci biir élèves yaa ngi ci biir maanaam commerçant yaa ngi ci biir ak sama yenn jëwriñ yi nga xam ne sax sama borom dafa dogal dañoo dem ba bitim réew di fi wërsëg sax teew bu ñëwee dañuy jaxasoo soppi yëpp wan ke ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi ñun ñëpp ñoo bokk li li li nu bëgg muy soppe Serigne Gana yi nga xam ne ñoo ñoo teew fii tey ci bis bi ngir ànd ak Serigne sant gi mi sant Serigne Touba ak bi jaay duxula fii ma la yuhit allahumma salli ala sayyidina mawlana muhammadin axidi bil hujjati wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa jali bi jaay axsan bi yeddi ila janaat allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin akhir sadaqati wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa jali bi jaay axsan bi zamami ila abdalil xayrati allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin akhir wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wajjana yowma bi jaay taahira min asaxaayiri walkabaayiri allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin axsanillahi wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa abli bi jaay kawnu koli wa kawni laka bila tanaa allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin urni xayri wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tuxni bi jaay afdala jëddi wa afdala tayi sayri allahumma salli ala